Rewmi 24 TV nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di rem 24 TV li gën a fës ci xibaar yi dañ koy dore nag Greenpeace Afrique mi nga xamante ne rek da dinay fësal liste publication yi nga xamante ne rek ñoom ñoo war a napp nag ci waaxi Sénégal yi mu nekk na ab information boo xamante ne rek fas dina nañ ko fësal ci ab liste moom jëwriñ bi ñu dénk wàllum napp mi ak infrastructure maritime portuaire da dinay réclamer nag ginnaaw ñeenti at yi nga xamante ne rek nit ñi ñu ngay sàkku rek ñu daal daal di nak bàyyi leen suñu geej gi mu nek nak mbir mo xamantene rek ñuy yëngatu ci walum nap ci seen jëmi bop rek ñom ñoko sakku won ci mbir mu lu mel nak ak organisation indépendante bi nga xamantene rek dafa juk pour protéger li di environnement bi ak lepp lo xamantene rek audi la jëmale ko ci pavillon sénégalais waye nak mettre en place li nga xamantene rek mom moy mécanisme bu solide bu ko defee nak ñuy contrôler ñi nga xamantene rek ñom ñoy nap ci suñu geej gi waye nak assurer képp kuy kat mu daal di am ab égalité ci bile réew le yooyu mbir nag daal koy dëggal ndax nag liste publication bi rek daal dinay jépp jamono ji nag ñi nga xamante ne rek ñoom lañu autorisé ñu napp ci suñu géej gi daal dinañu fësal seen liste bu ñu jógee foofu nag dañuy wax rek ci accident bi nga xamante ne moom moo am ci diwaan bu aéroport international Blaise Diagne avion bi ñu duppee Transair nag ginnaaw accident bi nga xamante ne rek daal dinay am fukk ci doomu aadama nag ñoom ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu ba ñu yóbbu leen fi nga xamante ne rek moom mooy ca centre hospitalier ngir nag assurer seen wér-gu-yaram fan li ca des nag yóbbu woon nañ leen ca hôtel ba ñu daal di noppaleku ba pare ñu ngi leen di xamal nag euh, que ne boobulee avion jamono ji nag yeneen voyage dooraat nañ ko ginnaaw bu 9h jotee ginnaaw yenn jafe-jafe yi nga xamante ne rek moom moo fa amoon te dara waralu ko lu boobulee accident jamono ji nag lii di avion yi euh, commencé nañ di décoller jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mun a am yeneen i xibaar.